ñu ngi am tey moom dañ la seet si woon. macha waxtaan ak yow. Mm-hmm. Euh, si xasida yi. Mm-hmm. waaw gis nañ que ni euh, ku fonk xasida yi. macha allah loolu moo taxoon ci euh, weeru koor bi. Mm-hmm. mu ñëwoon seet si la. waaw bu ko defee mi def ay jàngat. ñu waxtaan. waaw léegi xam naa noo lay léegi léegi balaa boobu da nga bëgg nga waxtaan ak. ñi nga xam ne hmm. euh, dañu seetaan def Connection euh, TV kii Sénégal hmm. waaw xam naa Allah waaw waaw ñu lay ñu seetaan rek bi bismillah ñu ngi euh, sant yàlla di julli ci yonent bi wa di sant ci Ahmadu Bamba kan la mu yi bàyyi di ko doolee taxaw ci moom di doolee yëral tamit suñu jokk ci moom di doolee doylu li nga xamante ni si euh, fa la ñu féete di ñaan yàlla aussi tamit mu gën a dëgëral suñu ànd ak suñu euh, jokkoo macha allah ngi jiitale fa nga xam ni euh, moom rek lañu am ñun daal di nit muy xasaay ak alxuraan Cheikh Ahmadou Bamba li ab di rëy rëy mu bàyyi ko fi ngir ñu ci ñu ciy jaar di jokkoo ak moom ñu ci jaar tam di jokkoo ak yàlla nga xamante ni si euh, moom moo ñu sàpp te mooy bu tedd bi sàpp macha allah euh, ñun nag amuñu dara lu la xas waaw ba na euh, lépp lu ci lal lal bu ñuy tëdd laataa ñu koo am dañoo am lalu xaste ba pare néeg bu ñuy fanaan laataa ñu koo am dañoo am néeg bu xasida yi fanaan ba pare kon suñu lépp dañ koo jël jébbalaat ko Cheikh Amadou Bamba amuñu lenn loo xamante ni si lu moomal suñu bopp la wala lu ñu cërale suñu bopp wala loo xamante si lu ñu koy téye suñu bopp ba tëdd di ñelaw muy dem ci suñu xel loolu xasida ak alxuraan ndax loolu dong lañ fi Cheikh Amadou Bamba bàyyi macha allah te am ndénkaan du réer kon lu ñu ci cëral rek nañ ko sàmm ndax buñ ko sàmmaloo suñu bopp it moom mu sàmmal ñu kontaan tamit ci euh, teewaay bi ñu am ci kër gi ci weeru koor wi di ñaan yàlla suñu borom mu nangu ñu suñu weeru koor te musal ñu ci balaa yi musal ñu ci lépp lu ñàkk rek tënkal ñu lépp ci biir weeru koor yi ba insha allah rabbi buñ ciy génn rek yàlla suñu borom fa jaare fa saafaraal ñu lépp insha allah rabbi euh, ñu xam ni euh, c'est comme temps bi bi nga xamante ni si. Hmm. moo ñu fi xaw moo gën a jokk a tax suñu jàkkaarloo man ak yow. Hmm. Euh, mu jëm ci euh, jéem a waxtaane li nga xamante ni si mooy euh, ndaw ak diine. Hmm. waaw ñu gën ko xam ci tubaab la jeunesse et la religion. ñu delluwaat xamaat rek que ni jeunesse. dara mënul dox ba génn ba génn ak ndaw macha allah eh, yàlla suñu borom loolu la ñu jàngal eh, alxuraan tamit loolu ci jàngat eh, ci di ci dénkaane yi bi si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul tamit loolu ci jàngat parce que bokk na ci ay téere yu ñuy jàngalee ak wet ak jub yépp ba ci téere bu ñuy wax tasawul istixaar sax boo ko déggee euh, tur dafa wuyu ndaw ba ci mag ñi mu daan jokkool daan leen defar ñu tëddoon ko ay mag ñi booba ay ndaw lañ moom parce que fa ndaw di toll ci digg dooleem ñooñu foofu lañ tolloon ci am bàmba jël leen di leen defaral seen àdduna kon ñu delluwaat xamaat rek ni diine dara mu cee taxaw mu romb ndaw te bokk na ci li nga xamante ni si am ndaw war na ci bàyyi xel muy lu koy jokkale ci yàlla suñu borom ndax moom mooy tax ëllëg yàlla suñu borom mën ko téyel ak magam te bu ñuy wax tamit euh, ndaw am na njëriñ waxuñu ko ci dàq dërëm waxuñu ko ci wut jigéen waxuñu ko ci tamit ci wut doole kàttan waaye dañ ko wax ci ndaw yi mu jokk ci yàlla suñu borom ndax jokk boobu muy am ci yàlla moo koy yombalal li nga xamante ni si moo nekk moo nekk ci kanamam te ab société pour mu jub jaar yoon faaw ñu jaarale ci ndaw yi te loolu ñuy jaarale ci ndaw ñi dafay bokk ci ndaw ñooñu noonu xam lan mooy seen diine xam aussi tamit fan lañu war a teg seen tànk gëstu xam àdduna xam-xam boobu mënul jógee ci lenn loo xamante ne si du am te njàng dafa metti ba si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul am na xasida bu ñu bind euh, duppee kun kaati man boo ko gëstoo ci biir sega waxtaanee euh, firi sax taxuñu feetoo dañuy waxtaan ci àdduna rek waaye xasida boobu di kun kaati man ku ko dem ba yër ko xam baat yàlla ca sëñ Tuubaa nga xam ni am ndaw balaa mu lu jub day nangoo jàng nangoo muñ mitit nangoo muñ alal nangoo xiif nangoo raflet loolu mooy tax euh, fa nga jëm insha allahu rabbi ñu àgg fa donc nañ bàyyi xel bu baax a baax que ndaw ñi ñun ñoo yor société ñu ndaw ñi aussi tamit ñun ñoo yor ndax mag lu jàng mag aussi tamit doon ko nga xamante ni si moom mooy gëstu kon lépp lu ñuy def muy eh, muy incarnation culturelle wala wala wala wala wala wala leneen loo nga xamante su dem ci jàngat la ci ndaw lañ koy def waaye kenn ko def si mag kon dañu góorgóorluwaat bu baax a baax a baax ñun ndaw ñi ñu xam ni euh, àdduna ñaar rek lañ fi dénkoo muy liggéey ak jaamu yàlla te ñaar yooyu yëpp ndaw koy def mag na jaamu yàlla waaye jaamu yàlla yi mag dafa wuteeg jaamu yàlla ndaw ndax keral keral ëllëg ca barzak yàlla suñu borom ndaw ñu la ko te mi ngi ko dig ndaw li nga xamante ni si day jàng jëmale ci diineem ak ndaw li nga xam dafa faru ci diineem waaw kon euh, bokk na ci tamit li nga xamante ni si mooy tax société bi dox muy ndaw lu xam diine

dina tax nit xam fi muy teg tànkam muy am njàng kon damay woowaat jeunesse bi di leen di leen di leen góorgóorloo di leen concentré loo ci jàng mu metti ak mu yomb que ça soit muy njàngum tubaab baax na parce que mooy tax ñu mën a xam euh, ñu mën a gérer suñu suñu suñu suñu suñu suñu vie waaw euh, la gestion euh, de la vie humaine mënuñu ko amee te mënuñoo te concentré wuñ tamit ci njàngum tubaab waaye bokk na ci tamit ñu góorgóorluwaat ci alxuraan góorgóorluwaat ci diine góorgóorluwaat ci xasida ndax la ca tënk lépp di ay ngëneel ku tedd bi denc lu ko kenn bi nga xamante si moom nangoo uh, noon bakkanam jëmale ko ci yàlla suñu borom kon nañ ci góorgóorluwaat baax a baax a baax te xam ni uh, temps bi ñuy uh, jël sacrifié ko muñ ci bànneex muñ ci naqar muñ ci xiif muñ ci lépp lu mitti ba amee ci njëriñu xam-xam xam-xam boobu moo ñu topp ba keroog ñuy sàmm suuf di ñu suturaal ba fay njëm insha allahu rabbi kon nañ bàyyi wax ci loolu bu baax baax baax te dem gëstu jiwaat te moytu euh, yëngutu yëngutu àdduna ndax jamono doon na ko nga xamante si ñun ndaw ñi euh, réer dugg nañu waaw soo déggee nag ma ni réer dugg nañu euh, damay delluwaat ci am njàng ndax am na loo nga xamante si buñ ko miinoon ci buñ buñ ci góorgóorlu woon bàyyi ci xel ci biir alxuraan incha allahu rabbi li fëkk ndaw ñu bay mën nañoo mën nañoo mën nañoo mën nañoo bañ fëkk ndax boo demee ci almunafiqun aaya numéro 9 yàlla suñu borom dafay wax yaa ayuha allazina amanu laa tulhi laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum an zikrillahi wa ومن يخلق ومن يفعل ذلك ف فلاك هو الخاسرون te eh, aaya boobu yàlla suñu borom jublu ci lenn lu man cay wax naan yéen aji yéen yéen aji gëm ñi lii di alal ak njaboot ñu gën cee seen jigéen bu mu leen dog seen diggante ak wote yàlla suñu borom képp koo xamante si doxee ma noonu rek bokk nga ci aji ñàkk ji ëllëg te aji ñàkk ji ëllëg mooy ña nga xamante ni si ñoom la yàlla di àtte ci safaan bu euh, isa taxawee mm, ci aaya boobu nag li mu ci gën a focaliser mooy alal xaalis alal doon na loo xamante ni si euh, yàq na yàq na jeunesse ñu bari bari bari bari ndax topp wutum alal tax na jeunesse bi ñu ci bëri talatuñu seen jàmm yàlla hmm. talatuñu aussi tamit gëstu jëmale ci yàlla suñu borom toujours li nekk seen préoccupation mooy euh, lu ñu mën a taxawee ba incha allah rabbi dërëm di leen yomb te dërëm boobu noonu di leen yomb baax na trop ci am ko waaye boo ko amee xam noo koy gérer tamit lu ci baax la te xam nooy gérer dërëm boobu la yàlla dégg dafa bokk ci xam nan ngay def ba dërëm boobu dox sa diggante yàlla suñu borom te dërëm boobu ngir mu bañ a dox sa diggante yàlla suñu borom faaw nga xam li yàlla wax ci alal faaw nga xam tamit li yàlla àndul ak diine yu jub ci ndaw waaw moo tax lu ci bëri mag ñi da nga leen di dégg ñu naan ñeent fukki at bu ko ndaw amul lépp lu mu am rek ngelaw maanaam wax jooju euh, dafa wund ni rek ndaw lu yàlla dégg alal tant que xam-xam ak man-man ak euh, gestion bu ko mën a euh, sur le intellectuel lu ko mën a dimbali ba mu mën a téye alal jooju tant nekkul ci moom rek ya rasul borom day dogal alal jooju bu ko téye day jafe yow alal jëlee téye waaye du ko téye te yàlla ñu mu jël ci jëmm ji nga xamante ci alal moo ko téye nañu gor ba am maîtrise di téye alal te alal lañ ñu téye ndax lu fi yàqu ci aduna alal ak jigeen ñu ñoo koy yàq te gis nañ tendance bi société di doxé ni dem na ba ñu suñu digënté ak jigeen waaw dañu dem ba muy jigeen di gor kenn dañu dem ba démystifier lool non te lu jar bàyyi xel la ni ci ni ci ni ci ni ci ñu ci góorgóorlu baax ba xam ni diggante goor ak jigéen bokk na loo do na loo xamante ci tank ab ab tagat bu soree am ci rek mën nañu mën nañu dugg ci caaxaan yoo xamante si dafay gàllankoor suñu diggante yàlla suñu borom te ko boobu muy am suñu diggante yàlla suñu bor non lay galan ko ci suñu société wa tax dina dem ba